chevalier mu ne Abdoulaye Wade moo ma ko defoon 2003 mu ne loolee la mi wundu maanaam mooy jaaj ma gën maa jaaj fëla ngir ma gën yokk samay jéego wax na ci covid bi nee na covid bi adduna bi yëpp xayma bi nga xam ne xayma woon nañ ko ci lu jëm ci seen wàllum économie covid bi daf koo salfaañe te réew yu bari ci adduna bi ñooy dund ay jafe-jafe moo xam Europe la rawatina France ba ca États-Unis nee na économie réewum Sénégal ba léegi nii déewul ma ngi résister maanaam ma ngi goy goyee ñaareelu vague covid 19 bi ñu ko ko laajee na lan moo ci sa Wade dafa wax ne bala may tontu dinaa leen rappeler na leen nous sommes dans le secteur de la communication et de l'événementiel mu nekk secteur boo xam ne moom la Covid 19 bi gën a andil ay jafe-jafe ndax African Leadership ci ak Corridor yooyu yëpp dañu ko annulé bu dee amul feneen foo xam ne maanaam fa ngay jafandiku mën ngaa am ay jafe-jafe lu jëm ci wàllum ñaareelu vague bi nee na économie réewum Sénégal attunu ko te bu amee ci réew mi gàllankoor gu rëy dina ko fi indi wax na ci lu soxal wàllum ndaw ñi nga xam ne amuñu liggéey bay jël gaal gi nee na forum du premier emploi 2000 laa ko doon wax nee nañu xalaat ci biir réew mi ak adduna bi yëpp nan la ñuy fexe teg ay politique yoo xam ne ndaw ñu danañu am liggéey moom président Mbagnick Diop nee na 2000 ba ma koy wax gars yi dañoo jàppoon ne ab géntkat la maanaam ab rêveur boobaak léegi toll na si ñaar fukki at gis ngeen taux de bi ni mu yokkee entreprise yu bare bari mënuñoo jël ndaw ñi nga xam ne ñoo am ay diplom te nekk ci marché bi émigration clandestine bi nag am na ndaw ñoo xam ne bu ñu xëyee defuñu dara yeewu rek gis seen morom moo xam ne jugu na bitim réew ñëw vacances tabax këram yor ab otom sàgganul mën naa jël gaal gi waaye li am ba des mooy jël gaal gi di dem ci bitim réew loole du solution kaay gi daan nay wax ne coronavirus bi lu toll ci fanweer ak juróom-ñaari junni yu fegg ñetti téeméer ak ñeent fukk ak ñeent ci ay nit ñoo xam ne amoon nañu xëy daal dinañu koy ñàkk professeur Souleymane Mboup daan nay wax ne Sénégal war nañoo waajal bu baax ñaareelu vague coronavirus direct news nee na président Macky Sall bi mu yëkkatee ay kàddu ne ñaareelu vague bi économie Sénégal attunu ko boobee ba léegi nii dafa andi ak tiitaange ci askan wi te ba pare moom Macky ma na yasar yéen a kaay gii de la turbine ñu koy fekk fa Mahmoud Saleh nee na Macky Sall ma ngi jokkoo ak Abdoulaye moom Mahmoud Saleh moo ko ni ki démb daat nay wax ne Idrissa Seck moom Macky bii mu nekk bii mooy premier mandat kon su neexee Macky war naa mën a présenté ngir am ñaareelu mandat ci bopp réewum Sénégal yéen a kaay gii de ak Sud Quotidien Vox Populi L'As L'Observateur yéen a kaay kaay yëpp xëy ci Idrissa Seck mi nga xam ne dàq na Déthié Fall ci vice président bu parti réew mi journal bi nee na li ko waral mooy bokk na si kàddu yi nga xam ne Déthié Fall yëkkati woon na ko fan yi ñu génn sa assemblée nationale wax ne Macky Sall vision gis-gisam ba léegi weesoogul jam ñaajo journal bi nee na loolee moo tax waa réew mi bu Idrissa Seck démb dajaloo sa Thiès jël ab dogal dàq Déthié Fall Idrissa Seck nee na Déthié Fall li nga xam ne moo ko naqari li ñu ko dugalul ci gouvernement bi ndax wax na ma na ma idi samay ñooñ ma wax lan moo tax idi dugalul ci gouvernement gouvernement bi nee na la mu ko tontu woon mooy gouvernement bi ñi ñu si xalaat nañ ko bu baax a baax waaye nag na noppi tëjal sa làmmiñ ndax mer mi la jàpp soo waxee di wax aw tëj penc Idrissa Seck dogal bi mu jël ni ki démb bëri na ñoo xamante ni ni ñu ko gisee mooy muut baa mott gi nga xam ne moom la Idrissa Seck doon ñaawlu jamono ji moom lay doxee yéen a kaay gii di li quotidien xëy na wax ne sa Seck bu ñu waxantee dëgg mooy le nouveau chien de garde de Macky yéen a kaay gii di réew mi quotidien mi bu Idrissa Seck ma ngi andi na ay tontu weddi na Idrissa Seck ci Les Échos nee na musul taxawu di sàkku ñu def ko ab député wala ñu def ko ab ministre yéen a kaay gi di Rewmi Quotidien ak enquête ak Vox Populi ñëw ci lu doy waar a doy a séquestration boo xam ne jéggi na dayoo ay centre de redressement yuk Serigne Modou Kara la waa gendarmerie gis lu doy waar a doy waar ay musiba ma kumba moo xam centre de redressement bi nekk Wakaam la Géejawaay wala Malika lu toll si ñetti téeméer juróom fukk ak ñett ci ay nit la ñu fekk ci centre yooyu ci anam bu doy waar a doy mi quotidien na mbir mbir mi ni mu commencé gendarmerie ñoo wàcc ci benn centre de redressement bu Serigne Modou Kara sa Wakam fekk nañ fa ay moto yu bare yoo xam ne dañu koo sàcc waaye tamit fekk nañ fa ay ndaw ñoo xam ne ñoo ngi leen toro toroxala fekk nañ fa tamit yamba fekk nañ fa ay moto yoo xam ne dañu koo def pièces détachées waa gendarmerie si la yokkee li nga xam ne mooy enquête bi waaye ca Wakam muy géej waaye muy Malika ay ndaw lañ fa fekk ndaw yoo xamante ni anam ba ñu nekk jéggi na dayo journal bi ne xanaa yëgul xew na ñoo xam ne sax jot nañu see faatu li nga xam ne moom la enquête bi wane ki ci mujj faatu boobaak juróom-ñetti fan yéen a kaay gi du l'observateur nee na jamono ji ñoo ngi si ubbi ab enquête ci ñi nga xam ne ñoo si jot a faatu yéen a kaay gi di vox populi nee na staff bu Serigne Modou Kara ñoom nag weddi nañ waa gendarmerie nee na ñi nga xam ne ñoo nekk ci centre yi mooy ñi nga xam ne tox nañu drogue ba àndutuñu ak seen sago ak ñi nga xam ne génn nañu kaso amatuñ fu ñu jëm ci nekk ci anam bu doy waar ñuy ñëw ci centre yi yéen a gi di réew mi quotidien nee na jamono ji bu ngeen xëyee ñu ne woo nañ Serigne Modou Kara ngir di ko déglu bu mu leen bett yéen gi di estat xëy di ñu tàggee Pape Bouba Diop mi nga xam ne